maa ngi koy nuyu jërëjëf mes de Diourbel jërëjëf maa nuyu aussi monsieur le ministre Omar Gueye madame la directrice coordonnatrice des enseignants républicains maa monsieur le directeur messieurs les inspecteurs chers collègues chers enseignants kàddu gi dama ko wolof parce que xëy na ñun ñu ngi waxtaan ci biir ñun ñi nga xam ne ay enseignants lañ bokk ci njabootu président Macky Sall waaye jàpp naa ne tribune la boo xam ne nii war nañ mën a wax ak sénégalais yi nekk seen kër di ñu seetaan ci li nga xam ni moo waral daje bi tey te ministre Mamadou Talla tënk ko éloquemment léegi en français muy li président def jëmale ko ci jàngalekat yi ba ngeen jàpp ne yéen tey da ngeen daje delloo ko njukkal ko ñiko wax jël kàddu ñëpp waxé ko légui kon bok président def na ci jangalé kat yi mais ci jangalé mi lo xam ni ay la yéwén kenn mësu ko def ci Sénégal mom la ministre Mamadou Talla wax engagement la yo xamni c'est inédit mais c'est historique parce que ñun ñëpp ay jàngalekat lañu ba ñu nekkee ci jangalé mi ba légui buñu ñu masaan yokk yi

ni ko monsieur le waxe Mamadou mu ne bëgguma gis abri provisoire mu jël témèr ak ñaar fukk ak juróomi milliards dugal ko ci pour réserver les abris provisoires def ko ci ñeenti lo mom le ministre wax légui tay lu wees genn wal gi dindi nañ ko ci abri provisoire lolu loolu jàpp naa ku gëm éducation moo koy def témèr ak ñaar fukk ak juróomi milliards mu dugal ko ci way yamul rek ci lolu ci wàll bi nga xamni mom moom la ma dégg ñu tuddé ko emploi ak formation professionnelle dama ci wax ñaar ba ñett xëy du fi xat yépp li mu def benn mooy gis ngeen ne parce que day baax ñun enseignant yi fa lay daane ne su may wax ñu yóbbaale information yi parce que enseignant bi wax léegi wax na ko parce que ñun dañoo nekk ay vecteurs war a wax ak njaboot gi wax ak famille yi benn mooy mu jàpp ne tey Sénégal ndaw ñi ñoo fi te ndaw jàng formation professionnelle liggéey la soxla mu jël ci formation professionnelle lo xamni ni kenn masu ko def moom tamit parce que ñi fi nek ñep indicateur bu may jël rek moy fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT mu def ci ñaar fukki milliards yo xamni ci gafa rew mi la jógee delloo ko ci formation professionnelle tay fo dem ci Sénégal xalé yi ñi ngi jang métier té duñu fay gën ngaa yes témer bo jël fukk la ñuy fay 90 de la formation état du Sénégal moo jël loolu masul am ci Sénégal parce que bi Sénégal nekkee Sénégal ba légui taxe bobu ñu duggal foofu ci formation professionnelle ñëpp dañ doon joytu pour ñu délo ko ci formation professionnelle 2015 le président décidé ne day jël bobu délo ko ci formation professionnelle L'indicateur indicateur la bo xamni xeyna ci kat yi mais jëm na ci secteur éducation de manière générale beneen bi ma ci wax ci walu fi ñuy jàngee formation professionnelle centre de formation professionnelle président def ci ay Diego bi mi ñew ci réew mi parce que xam ngeen le centre de formation projet je vous apprends rien ñun ñep ay jangale kat lañ du rek classe bu ñu def 4000 ak tableau classe la bu am ay laboratoire am ay atelier ça coûte cher bi mi ñew ci réew mi juróom ñet fuk ak juróom-ñaari centre de formation la fi fekk 2012 bi mu ñewé ba léegi ñu ngi ci témèr ak fanwer ak ñaari centre de formation ci biir Sénégal masulam bokul mu né département bu nek dana fa def centre de formation professionnelle ajjuma inshallah, dina a dem Goudiri au nom de l'équité territoriale bien centre de formation sur les métiers de l'agroalimentaire à Goudiri pas moins 2 milliard 100 millions de francs CFA dimanche mon président de la République dina dem Bunkiling il centre de métier centre de formation sur les métiers de la foresterie Masoulam. ku yeewoon Bunkiling wa Goudiri ne leen centre bu mel dina fam parce que le président moo gëm

le 21 inchallah allah dinañ def CRD ak le CDD ak waa Guédiawaye pour wax na lan le président na ma def ci liste boobu. kon bok la balle est dans notre camp li yëpp su ko président mené c'est parce que dafa am gouvernement buy liggéey mais surtout dafa am assemblée nationale une large majorité lol nak lañ bëgg le 31 juillet ñun ñëpp ñu takku kenn bañ ñu ci jitu ñu joxaat ko une écrasante majorité pour que mu wéyal liggéey bi nga xam mom lañ. maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf madame la président